asalaamaaleykum sunu mbokku internet yu TMS TV ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen balu ak di leen bal ak di leen jox seen wàccuwaay nu mu gën a kawe dalati leen nag jàmm ci seen seen bi nga xamante ne moo feeñal li nëbb di la TMS TV. ñu ñëwaat ak yéen rek ak benn kiis bu nga xamante ne dalatina sunu kaw ñun umma islamique bi yëpp rawatina feesa Medina Baye nga xamante ne démb rek euh, la ñu doon denc xalif général di Cheikh Ahmed Tidiane Niass ronge ñi feragul sax ñu ñàkkaat keneen si ñoom di Cheikh Moukhtar Niass Cheikh Moukhtar Niass nag fii la nelawee tey fii ci dakaar ci feebar boo xamante ne tëralu ko sax ñuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ñaan yàlla taas ñu ci barkeem bonjour chers internautes de la TMS TV merci de votre fidélité la cité religieuse de Medina Baye a encore enregistré un décès et pas des moindres il s'agit cette fois-ci d'un autre fils de Cheikh al-Islam qui s'appelle Cheikh Mokhtar Niass il a été rappelé à Dieu ce vendredi suite à une courte maladie il est le père de Baye Mokhtar Niass et de Mounzir Niass Toute l'équipe de la TMS TV présente ses condoléances à toute la famille de Cheikh Al Islam.